الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mbokki jullit yi ñi ngi dénk suñ bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa ta'ala nañu ko ragal te di ko fuglu mooy di ko bàyyi xel saa su ne nañu topp suñ boroom subhanahu wa ta'ala te bañ koo mooy ñu xam ni yàgg-yàgg mënuñu koo rëcc danañu dajeeg moom boroom bi subhanahu wa ta'ala nee na yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla akub yonenteem na ngeen ragal yàlla dëgg dëgg ragal te ngallawaay bu leen faatu lu dul fekk na ngeen jébbal seen bopp seen boroom subhanahu wa ta'ala kon nañuy ragal yàlla suñu kemtulay kàttan te mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere yi mbokk jullit yi ñu xam ni jaam bi mënta am ak texe mënta mucc lu dul ni dafa def yitte farlu guddi ak bëccëg ngir jéem a xam ki yàlla yónni ci moom te mooy sallallahu alayhi wa sallam def ci yitte ci xam waaye def yitte su ko xamee itam mu jëfe ko ndax loolu mooy tax mu mucc tey mooy tax mu mucc ëllëg mooy tax mu am texe tey mooy tax mu am texe ëllëg borom bi subhanahu wa ta'ala ni képp koo xam ni topp na yàlla akub yonenteem te ragal yàlla ragal mbugalam di ko wattandiku te mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere yi nee na ñi jikko woo jikko yi ñoom rek ñooy ñi mucc ñooy ñi texe ñooy ñi raw kon di wommatu di wuyu di jéem a topp ndigalul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li ñuy tuddee tata maanaam barab la boo xam ni daal soo fexee ba dugg fa yow am nga sécurité bu mat sëkk waaye mooy xuntu mi nga xam ni ba tey barab bi nga xam ni boo fexee ba dugg fa yow na nga xam ni texe nga raw nga borom bi subhanahu wa ta'ala ni ñi nga xam ni dañoo gëm yàlla suñ leen woowee ci yàlla akub yonenteem rawatina am lu dox seen diggante ñu war leen a àtte seeni wax du doon lenn lu dul ni dégg nan say wax yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye wa ataana danan topp sa ndigal ñun duñ wax sami'na wa asayna dégg nan waaye ñoo làkk dégg nan waaye dañuy jëfe nee na ñi nga xam ni itam ñoo gëm yàlla jikkoo woo melokaan yi jikko yi rafet yi ñoom rek ñoo texe ñu xam ni bépp musiba buñ mus a dégg wala buñ mus a gis fii ci àdduna ba ilaa qiyaami saa dara waralu ko lu dul juyoog yonente bi yàlla yónni ci ñun sallallahu alayhi wa sallam bañ a jëfe sunnaam loolu rek mooy problème bi mooy mushkila yi borom bi subhaanahu wa ta'ala ni nañu wattandiku na wattandiku ñi nga xam ni dañuy juyoog ndigalul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fitna daat leen di jot fitna jooju nag bépp musiba rek bépp garaawaale boo mu mën a xalaat rek mi ngi ci fitna jooju dund bu karaj dund bu naqari ay jafe-jafe ci kaw jafe-jafe ba keroog ila qiyaami saa bu boobaa itam jafe-jafe ba gën a rëy te mooy mbugal mu mettee metti kon juyoog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du lu woyof du lu tuuti nañ koy wattandiku képp koo xam ni bëgg nga sa àdduna neex sa ëllëg raw ko na nga góor góor lu ci jëfe alquran ak sunna alquran it mënoo koo jëfee mënoo koo xam ndare ni dangaa roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam topp ab jàngaleem jéem koo xam te di ko jëfe moo tax abu bakr ni siddiq radiallahu anhu wa ardaah moom mi nga xam ni daawut tàqalikoog yonente bi sallallahu alayhi wa sallam guddoog guddeeg bëccëg bokk ci ñi ko njëkk a topp njëkk koo gëm nga xam ne lépp lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax wala mu def ko du ci am lu muy déng-déng wala lu muy sikk sàkk da koy gëm cent pour cent te bi fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jógee mooy ki ko njëkk a wuutu ci jullit ñi abu bakr moom dani man de du ma bàyyi dara lenn loo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na di ko wax wala di ko def lu dul ni jëfe naa ko mu ni lu waral loolu dama ragal ni su ma ko bàyyee jëfewuma ko ma daal di jeng maanaam ma wàcc yoon wi te xam nga yoon wi nga war a tegu ba dugg àjjana soo ko wàccee tarxiis nga aw yoon nag bu fekkee moo lay eggale fa nga jëm jaaroo fa wala nga jaar ci ba mu yàgg nga wàcc fa nga jëm doo fa egg nee na damaa ragal bu ma juyoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma daal di tarxiis ma daal di jeng wàcc yoon wa loolu moo tax lépp lu ma xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko def rek dama koy daal di jëfe kon nañ ko roy ci loolu suñu imaam bu mag boobu ñuy wax al imaamu malik rahimahullah imaamu daaral hijra mu ni sunna mooy gaalug yonente yàlla nuux képp koo xam ni dugg nga ci ah yow raw nga yow mucc nga waaye képp koo xam ne lànk nga ni doo ci dugg ah alkande jot na la yow alku nga tuskare nga yow daal na nga xam ni yow lab nga mbokk yi képp koo xam ni dafay woote wooni bëgg na yàlla subhanahu wa ta'ala te bëgg yàlla googu tegu ko ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam roye ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci am njàngaleem nañu xam ni loola ay waxi kese la wax la yoo xam ni amul bopp amul genn wax la yoo xam ni li muy wane mooy loola muy woote woo du dëkk loola lu koy firndeel borom bi subhanahu wa ta'ala moo ni qul in kuntum tuhibbuna allah su fekkee bëgg ngeen yàlla su fekkee bëgg ngeen yàlla ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na fattabi'uni kon topp leen ma mënu leen a bëgg yàlla te nanguwu leen maa topp man yonent bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ma toppee ci bëgg yàlla googu ngeen ko bëgg de ah bu boobaa nag yàlla daal di leen di bëgg bu leen yàlla bëggee kañ seen àdduna baax seen alaaxira baax bu ko defee daf leen di daal di jéggal seeni bàkkaar yërëm leen ndax borom bi mooy jéggalaa kon bi mooy yërëmaa kon bi kon wax am na solo lool waaye lu koy dëggal lay tax wax ja am solo mooy na ca jëf topp waaye wax ju àndut ak jëf loola waxi kasaw kasaw la ñu xam ni même yonente yi ñi yàlla yónni ñu jiitu woon fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu fekke woon jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du ñu def lenn lu dul topp ci ginnaawam topp ci shariaam ci xadis boo xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi giñ ni ki nga xam ni bakkanam mi ngi ci loxoom te mooy subhanahu wa ta'ala ni yonante yàlla Muusa su fekkoon jamono mi ngi dund jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk na ko fi amul dara lu muy def lu dul ni daf may topp man yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu di firndeel li ñuy wax sànq ñu xam ni yoon yi yoon wi nga xam ni mooy taxa dugg biir aljanna ah suñ boroom subhanahu wa taala daf koo tëj daf koo tëj te du ko ubbil kenn kenn kenn lu dul ñi nangoo topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci aw yoonam ñooñu dong la koy ubbil kon nag loo mën a woote woo ak loo mën a am fii ci àdduna ak fu ñu la teg teg su fekkee loola yépp dafa juyoog yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga xam ne yow xaw ma ban àjjana waaye àjjana ji nga xam ne mooy àjjana yi suñ borom subhanahu wa taala yow amoo bunt boo fay jaare boo fay dugge kon na nga dem uti beneen aljanna loola lan moo koy firndeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sama xeet wi yëpp dana dugg àjjana ba mu des ki lànk ki bañ ñu ne ko waaw yow mi yàlla yónni ah kan mooy gis àjjana ba noppi ni du ci dugg di bañ mu ni waaw ki nga xam ni gëm na ma nangu maa roy nangu maa topp kooku nangu na kooku moom dana dugg àjjana waaye ki nga xam ni nee na moom sama sunna yoonam nekku ci ay biddaa ak i caaxaan rek ci lay xëy ci lay goon ah kooku moo bañ doonte waxu ko ci làmmiñam waaye kooku moo bañ kooka du dugg aljanna bu ëllëgee yàlla nañ ci yàlla musal bokk na ci màndarga yi nga xam ni nag dafay wane ni yow wuyu nga déggal nga nangu ngaa topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy nga jiital sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci sa bànneexu bakkan doonte diis na ci yow metti na ci yow waaye nga jihaad ak sa bakkan jihaad ak seytaane topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen du mën a am ak ngëm yàlla wala am ngëm yàllaam du mën a mat lu dul ni dafa topp li ma indi jiital ko ci bànneexu bakkanam laa yuminu ahadukum xatta yakuna hawaahu tabaan li ma jitu bi waaw mu wommat bànneexam not bànneexam not bakkanam mu topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhanahu wa taala itam di wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jëm ci jullit ñépp fala wa rabbika laa yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum du ñu mën a am ak ngëm yàlla mukk lu dul ñol-ñol yi dox seen diggante jafe-jafe yi am seen diggante lu dul ni dañ koy indi ci yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gaaral la ko nga àtte leen àtte leen ci alquran àtte leen ci sunna soo leen àttee ba pare itam du ñu am dara luñ ciy sikk sàkk wala ñagg-ñaggi xol lu leen ciy metti maanaam nangu-nangu ñàkk pexe du leen ci fekk waaye dañ ciy am ak cawarte am ci ngëm gu mat sëkk ni li ngi leen àttee loola mooy dëgg te loola la ñuy daal di jëfe kon képp koo xam ni am nga jafe-jafe ci sa àdduna wala ci sa diine nga gis boroom xam-xam bu ragal yàlla bu ko mate mu wax la la ca yàlla wax wax la la ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ba noppi nga gis ni loola dëppoowut ak sa bëgg-bëgg nga daat koy teg fee dem topp sa bànneex na nga xam ni yow ci leneen nga nekk waaye nekkoo ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loola musiba rek la lay daal di jural ñu xam ni bokk na ci yar ak i teggin ci sa diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy nga jébbal ko sa bopp jébbal gu mat sëkk wommatu ci ay ndigalam wommatu gu mat sëkk waaye lépp loo xam ni leer na la nàññ ni lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nga nangu ko dëggal ko doo ci jiital ma sàmba doo ci jiital ma demba yàlla wax wax ju leer nañ loo xam ne amul dara lu ñuy laam-laamee wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis bu wér kenn boo xam ne lu leer naññ la nga naan waaye sëñ diw nee na wala maam diw nee na waaye nag nangam nangam nangam loola musiba la loola bokkut ci ay teggin yoo xam ni war naa dox sa diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom la yàlla yónni ci yow say wax say jëf say jëflante say doxin say lépp da nga koo war a jële ci moom moo tax rafi ibnul xadij dafay wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañu tere mbir moo xam ni lam ñu tere de amal nañu njariñ ci suñu gisin waaw lii daal jàpp nañ ni amal nañu njariñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere ñu ko waaye nag topp yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loola mooy li ëpp njariñ nag loola mooy mbir ma nag masalan yaa ngi def loo xam ne jàpp nga ni baax na ci yow waaye yàlla bëgg ko wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko ah ñu tere la ko digal la loo xam ni mooy tax nga am ngërmaande borom bi subhanahu wa taala mooy tax nga am ah ngërmaande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga xam ni dangaa war a bàyyi lële nga jàpp ni amal na la njariñ te ñëw ci lii nga xam ni moo ko ëpp njariñ maanaam ab jullit bi dafa war a yittewoo su ñaari mbir nekkee nii bii baax waaye bii moo gën a baax na bàyyi bi baax te jëm ca ba gën a baax naka noonu su ko gaaroon ñaari mbir yoo xam ni benn baaxu ci te mënu cee mucc na xool bi gën a woyof ak mbon mu jël ko maanaam xadis boobu li muy wax dañ daan am ay suuf yoo xam ni dañ koy bay léeg-léeg nga gis koo xam ni dafa bëgg a bay te amul suuf mu ñëw nga luyee ko ko la nga koy luyee nag su bayee ba noppi moo xam genn wàllu lam bay la lay jox wala nga ne ko nangam ci xaalis nga may jox loola daal nawet bi baax naag baaxut sama yoon nekku ci ak lu lu boo bayee ba lépp lépp lépp yàqit man la nga ma war a jox danga ma koy jox xam nga loolu du jëflante bu rafet ndax lor sa mbokkum jullit la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal leen di tere loolu su fekkee yow am nga suuf soo mën a bay bay ko soo demee ba mënoo koo bay gis sa mbokkum jullit mu ko mën a bay bul ko ko sax luyee doonte luyee ko sax baax na waaye nga abal ko ko mu bay ko ngir yàlla daat cay jariñu nga am ca tuyaaba dugg ci at-taawun alal birri wat taqwa loola mooy li nga xam ni anfa'u lana mooy li ñu ëppal jariñ bu ñëwee ci sahabatul kiram ñoom da jox nañ ñu ay misaal yu kawee kawee ci déggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wuyu ko topp ko roy ko jaar ci aw yoonam loola doonte seen bakkan lay laaj seeni ruux doonte seen alal du ko fekke waaye bu ndigalul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xasee jib faaleetul te ma sàmba wala demba wala baay wala yaay wala soxna wala doom jëfe rek bu ñëwee ci almiqda dubnu aswad mu ni damaa ñëw ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ñun de duñ la wax la nit Muusa ya waxoon yonante yàlla Muusa demal ànd ak sa boroom ngeen xeex ñun moom ñoo lànk ànduñoo ak yow di xeex fii la ñuy toog demuñu fenn mu ne ko ñun duñ la wax lool de waaye ñun dañuy wax dañuy jihaad dañuy xeex ak noonu yàlla yi ànd ak yow taxaw sa ndeyjoor sa càmmooñ sa kanam sa ginnaaw foo toll rek ñi ngi ànd ak yow soo geestoo gis ñu doonte suñ bakkan du ko fekke suñ alal du ko fekke suñ dara du ko fekke lii mooy dëggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wuyu ab wooteem wommatu ci moom wommatu gu mat sëkk ibnu omar nee na ba ma déggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci benn xadis ni du yell ci nit ki du jaadu ci moom benn benn jullit boo xam ne am na benn mbir moo xam ni bëgg na koo dénkaane ndax xamuloo sa bopp dara xamoo tay la xamoo suba la xamoo naka la xamoo fan la sa bakkan mi ngi ci loxoy borom bi subhanahu wa taala te saa yu ko neexee mu jël ko te dee nag du dikk lu dul ci mbetteel moo tax boo amee looy dénkaane sa ginnaaw na nga ko bind soo ko mënee bind soo ko mënta bind am ku la ko mën a bindal woo ko mu bindal la ko soo ko mënta def it te man koo enregistré am foo ko denc wala nga woo sab xarit wala sab dëkkandoo nga wax ak moom bind bind ko sax mooy la gën a wóor nee na ba ma déggee loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni du fanaan ñaari guddi lu dul ni ndénkaane booba bind na ko ah di ko njeganaayoo di fanaanoog moom teg ko ci wetam fu mu toll nee na ba ma déggee xadis booba amul genn guddi goo xam ne danaa ko tëdd lu dul ni sama ndénkaane maa ngi tëdd ak moom kon lii mooy dëggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jox ko sa bopp wommatu wommatu gu mat sëkk ba tey ci beneen saxaaba ñu wax abu juray nee na dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko man de dama bëgg nga dénk ma wala dama bëgg a kóllërante ak yow lan nga may digal lan nga may wax lan nga may dénk mu ni ko bul saagaati kenn bul saaga kenn wala bul xas kenn bul ŋàññ kenn bul ayibal kenn bul sikkal kenn nee na ba ma waxee loolu ba tey musumaa ŋàññ wala di xaste wala di saaga kenn moo xam gor la moo xam jaam la moo xam sax ay bàyyi ma la moo xam xar la wala giréem la wala bàyyi ma yi sax du leen ayibal wala di leen xas wala di leen lor kon yow mi nga xam ni nee nga ab jullit nga te foo toll guddeeg bëccëg yaa ngi bind yaa ngi wax ci sa deru moroom loo xam da lay wóor ni sa digganteeg yàlla li ngay wax wala li ngay bind dara du ci dëkk loola lan moo ko gën a rëy ci ay bàkkaar yoo xam ni mën na laa ëllëg ëllëg waxuma ëllëg sax balaa ëllëg fii ci àdduna mën na laa alag mën na laa jural ay musiba ndax nag suñ boroom buur bu baax la buur bu maandu la kama tadinu tudaan kenn ku ne la nga leble rek moom lañ lay fay kon lépp loo xam ni bëggoo ku la ko wax bëggoo ku la ko def bul ko def sa moroomum jaam bàyyi ma yi sax waroo leen koo def waxantuma laa sa moroomum doomu aadama ni yow nga xam ni doomu aadama suñ boroom moo ko teral wala xadd karram naa bani aadama kon mbokki jullit ñi ñu xam ni daal nit ñi jullit ñi doomu aadama yi ñi ci gën a matle ak dund gën cee neexle ak dund mooy ñi nga xam ni ñoo jaar ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déggal ko wommatu jox ko seen bopp jox goo xam ne jot jox gu mat sëkk la képp koo xam ne nag am na lu la ca manqué na nga xam ni am na lu la manqué ci sa dund kon foofu la ñuy rawantee waaw ku la gën a déggal yonante bi sallallahu alayhi wasallam nang raw la ci topp ko ci roy ko da nga xam ni moo la raw tey moo la raw ëllëg ndax kat borom bi subhanahu wa ta'ala nee na yéen ñi nga xam ni da ngeen a gëm yàlla akub yonanteem su leen yàlla wooyee wala ak yonanteem te duñ leen woo ci dara lu dul loo xam ni dafay dundal seeni ruux di leen yokk ak leer di leen yokk ak ngëm yàlla bu mat sëkk di leen jural loo xam ne mooy seen texe tey ak ëllëg ngalawaay bu leen am lu ngeen ciy dégg-dégg na ngeen fëx daw wuy ji te nangoo topp moo tax ibnul qayyim ni dund dëgg dëgg dëgg dund gu neex dund gu teey mi ngi amee ci nangoo wuyi yàlla akub yonenteem ci li feeñ ak ci lu nëbb nee na ñii de ñooy ñi nga xam ne ñoom ñi ngi dund donte sax dañoo faatu ban suul leen waaye ñoom ñi ngi dund ndax ci yoonu yant bi sallallahu alayhi wa sallam lañ jaaroo waaye yow mi nga xam ni wuy woo yàlla akub yonenteem jaaroo ci aw yoonam donte yaa ngi sañ say sol yére yi rafet di dox ñu jàpp ni yow yaa ngi ci jàmm dañu xam ni yow néew buy dox nga yaa ngi mel ni kuy dund waaye yow faatu nga bu yàgg ndax jaaroo ci yoonu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah dafay wax ni nit ñi dañoo aajowoo aajowoo bu mat sëkk ci gëm yàlla akub yonenteem te nangu leen a topp nee na aajowoo gi na aajowoo loolu moo ëpp doole fuuf moo raw aajo gi nga xam ne aajowoo nañ ko lekk ak naan mu ni bal moo ëpp doole sax noo suñ nooy yi nga xam ne ñu ngi koy nooy kon gëm yàlla topp yàlla akub yonenteem loola moo ñuy jural texe tey ak ëllëg kon lépp loo mën a gis rek moo xam ci yow la wala feneen rawatina ci jamono yii nga xam ni dañ koy tudde weeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ci amal ay xew-xew loolu yépp rek nañ ko natt ci lii ñu wax sànq lépp lu ñuy def rek nañ xool ndax yàllaa ko digle wala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko digle wala ndax daana ko def ndax bi mu fi bàyyi ko abu bakr ni siddiq radiallahu anhu wa ardah ndax daana ko def wala digle woon na ko omar noonu usmaan noonu ali noonu saxaaba yi noonu ba ci boroom xam-xam yi nga xam ne sax ñoo ñëw seen ginnaaw ndax xew-xew yooyu daanañ ko def wala déet bu ko defee nag atte baa ngi noonu yow yaay atteel sa bopp yàlla nañu yàlla def dëgg dëgg jullit te tënkuñu ci alquran ak sunna saxal ñu ci faat ñu ci اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله